mais est-ce que tu histoire de mën na dem Cheikh Omar ba Sonko ak Khalifa Sall tey war a autour d'une coalition. en politique il faut jamais dire jamais parce que mon ngeen am ay Moi, même pas jotee ak nit politique. je nga ci am mm. mesure. Je mm. nga am mm. parce que là, mon ngeen mon mën mais à vrai dire au Sénégal dafa dee woon complètement kan moo critiqué. non dafa dee woon complètement Ousmane Sonko est le moteur de l'opposition. c'est-à-dire yalla mo bëgg dëgg au delà de phénomène politique bi et cetera dynamique bi opposition bi ñëw ba egg ben doolé ba mëna xoj Macky Sall ba ñu mëna am mairie yu bëri contrôler ko mëna nek 80 députés à l'Assemblée nationale hmm. ça c'est Ousmane Sonko hmm. c'est vrai que ben lam kese du yëngatu ñeneen ñëpp dajalé nañ la am parce que boy taxañ da ngay jël mat yëpp mais buñ doon jël nak bi rek ñu né nañ ko sédélé mo ci ëpp hmm. té mo ci ëppalé mën nga ko bañ a dégg nag. yàlla moo ko may lool. Mm. maintenant euh, en politique quand mm. tu avances. Mm. tu déranges. c'est aussi simple quand tu avances tu déranges. Ah. est-ce que gis nga ñu attaqué euh, sama grand Cheikh Bamba Dièye gisoo ñu attaqué ko wala ñenn ñu attaqué <laughs> mais kan la ñuy attaqué parce que moom moo nekk au devant moom moo occupé tout cet espace Ousmane Zongo mu ngi si kaso bi yow sa émission booy def il faut qu'on parle de Zongo. journal bu bëgg a jariñ foo mu bind Sonko léegi léegi gars yi jaay ndaamaraas photo Sonko leen ci taf yàlla moo ko may loolu. oui mais yàlla moo ko may loolu maa ngi démb am na bi mu ne xaw ma benn dugub lay xëddee gars yi commencé jaay benn dugub donc ça c' est c' est yàlla moo ko may loolu. Hmm. maintenant li ma la wax si logique politique opposition dañu nekk ci bataille de positionnement yow leeral la ni Ousmane Sonko bu nekkoon candidat candidat cëppi cëppi sorxo sorxo yu bëri duñ ko nekk. amna na ñoo xam mën nañ ko soutenir sax né wa ñu ngi koy soutenir nangam sangam mais au fond bu ñu wéetee xam nañ ni waji ji bu bokkee ñom ci langue ji dañuy ñàkk duñu bokkati ñi laal seen basang ñooñu nak bu ñu gisee lu ko nar boole dañ ci xëpp suuf donc li ma wax rek lool la foofu nga koy jàpp rek nga xam ni nga mën a comprendre am une lecture maintenant ce qui est regrettable et mm. dommage mm. ça veut dire que si l'opposition ne parvient pas à s'unir donc est-ce que dañuy xool l'intérêt commun du Sénégal parce que tey ñoom ñëpp benn adversaire lañu waroon am. mooy ok ok mooy régime euh, président ñu bokk ay benn poñ bu ñuy taxaw ne moom la ñuy tax a xeex. Hmm. kon seen i différent ak seen i position ak seen i intérêt waruñu ko woon jiital. Hmm. li ñu waroon jiital kay mooy l' intérêt commun. Hmm. alors mu nekk lu am solo exactement. Euh,